jërë ngeen jëf mbokku internet Major TV dañu leen di nuyu di leen ziar di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un artiste bii di Démby Fall moo génn àddina tey ci suuf fële ca Kër Massar moom nag euh, feebar moo ko tëraloon depuis quelque temps artiste bi nga xamante ne incarne na multiple rôle ci théâtre sénégalais mu ngi dugg ci théâtre depuis mille neuf cent soixante-dix-sept àddina ci euh, bay tabaski information bi euh, sa famille mu ko confirmé groupe de presse bi di Dakar Actu Demi Fall dinañ ko jébbal boromam euh, fële sa Tiwaawan ñu préciser rek nekk moom dernier volonté moo doon euh, ñu Sëriñ Moustapha Sy guide Moustarchidine euh, jullee ko